fee ci 21 16 Adam Payton Boulevard. ñaata la ko tardé 1 million 1 million 1 million de dollars. 150 millions 1 million dollars. 1 million dollars. acca waaw ok ñu ñëw ci l'honorable député Abbas Fall de Dakar. waaw mais sama gars yi waa New York ñu ngi <laughs> président moom su waxee ful ah. Euh, indi na yóbbante yóbbante président Ousmane Sonko. Uh-huh. indi na yóbbante. Sénégal yëpp. allah. yéen moom macha allah mhm. ah. <laughs> loolu ñun de 100 millions moom 100 millions duñ ko laal moom. waaw da nga bëgg a yéegal kañoon bi. Ah, <laughs> <laughs> allah. you can open the door. I'll, I'll, I'll film him quick. Yes, I apologize. da ngay toog ci dafa am kuy toog ci kanam bu la neexee kenn mën na ci kanam ñaar toog nii waaw dama ñëwal côté bële na wiiri dale waaw wiiri ubbil ko foofu la gi suñu <laughs> gan yi ah suñu gan yi macha allah there you go our guests are here there we go. ma ne Ousmane. ah bii la de.